yàlla la yàlla may baat bi sax te may la xel mu dal li ngay wax nii du hasard bibliothèque nga Sénégal ku baax la bibliothèque nga Sénégal ndeysaan maire nitu aljana la li nga ci wax loolu mooy yar na njabootam li nga ci wax bëgg de ñëpp di ko di ko yar na njabootam ci mbaax yar na njabootam ci yiw yar na njabootam ci dal te amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin kontaan naa bu baax dama ko tey ñëpp di ko xool di ko xool ci ci sa statut ñëpp di ko di ko partagé wallaay ndeysaan man maa ngi si numéro mais macha allah loo dugal dama koy seet wax nga dëgg mel ne wax nga ci loo xam lu am am solo ba ñëpp tey di ko partagé yonent bi dafa ne nit bu génnee àdduna xool leen li mu baax le wane vocal wane firndeel cofeelam ci yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. dafa am ñoo xam ne bu xew-xew jotee mën nañ ci profité ngir nit ñi xam leen wala da gis ku yor site internet bu kenn xamul day xool ku ñëpp di suivre jamono jooju mu ne xaaral ma attaqué ci ko pour gagner ci vie pour am lu ma fayeeku waaye la yonent bi wax ñun ci mbaax la ñuy dox ci yiw la ñuy dox parce que tey moom moo aye suba kenn xamul kan mooy aye almeeri yoo fi boo fa demee di nga ko fekk liir gis fa ku tolloon ci raam gis ko am un an ba ku am quinze ans ku am cent ans nekk ci biir almeeri yàlla moom kenn waaye nag jàmm na dina yaakaar te dëjëm bii de wane na firndeen ni mhm. nit ku baax la damay dégg sama bàyyi mbay peex di wax ni mhm. nit bu génnee àdduna bu sigil ndigaale bu bu yoonu xabru ya mokkee mooy yoon ba bu demee ba def yoon ci mm-hmm. dem moo baax waaye bu sigil ndigaale yi bare mm-hmm. ñi mbàyyi ñoo baax mm-hmm. ay njabootam ay soppe yonent bi lañ ay njabootam ay nit yiw boo leen xoolee xam ne yar nañu leen déggoo kenn ci ñoom mu yuuxu jooy néew na nga dem ci dëj ni du yuuxu ay wuy ñàkk na ay wuy torox na doo leen dégg doo dégg seen kàddu fi ñu sëgg la sëgg bennoo nañu ay xarit lañu muy Walid muy Bintu mhm. muy Mouhamed mhm. muy Seyna Aline muy Aïcha ñoom ñëpp seen yaay yar na leen te itam àdduna nag wala foo ko wax nee na gunge àgg baaxu ca koo gis am na fu mu yem mm-hmm. am continuité am ñeneen ñuy eggali mm-hmm. keneen noonu keneen noonu keneen noonu mm-hmm. yal na yàlla xareb aljana la yàlla wax ci alxuraan yi xul in kuntum tuhibbuna laha fattabi'uni yàlla dafa ni leen bind ni ngeen mel maa leen ko def pour ngeen gëm nag man yàlla delloo ngeen ma njukkal bëggal leen ma waa jooju tëdd Medina bu ngeen ko bëggee rek yuhbibkumullah man yàlla damay ñàkk sago ci du ma yem ci sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla fay merci beaucoup kontaan nañu ya rabbal alamin yal na yàlla fay ya rabbal alamin kontaan naa bu baax a baax amiin yaa rabbi wallaay ndeysaan yéen a baax ñoo leen raw lu bari jërëjëf kontaan naa bu baax a baax